Net Bi TV abonnez-vous seen chaîne bi di Net Bi TV seenu actualité buzz sport religion politique humour musique ak Net Bi TV léppay leer salaamaaleykum mbokki ñuy teewlu ci net bi TV Sénégal ginnaaw bu ñu leen nuyoo jaar leen am mbégte bu baax a baax feggoo ak yéen euh, ci jotaayu xibaar bi ci waxtu wi saa bu jotee dañu leen koy tënkal ci kàllaama koccu tey ci alxames yemook euh, fukki fan ak ñett ci weeru euh, avril ci atum 2023 dañ leen di doorale xibaar yi ak lu ñel mbirum l'international sénégalais di Sadio Mané Sadio Mané nag fi ne ay mbiram di ñeen samp ay laaj ak ay lam-lame yu ci jot am ndax bu ñu xoolee uh, coow li nga xam ne jot na dox digganteem ak ki nga xam ne moom moo di uh, Sané uh, coow loolu nag dafa mujjee rek daal di jéggi dayoo ndax ki la di Sadio Mané tey Sky Germany ci la daal di xëy ne versaire yi dañu ko rek daal di tourner le dos ba ki la di Sadio Mané jot a sax am ay jafe-jafe club ba mu nekk di Bayern ba tax na rek ay sanctions daal di dal ci kawam ndax ñoom mënuñu accepter réaction bi nga xam Sadio Mané def na ko moom moo di dal di dóor ab arrêt ki nga xam ne moom moo di Leroy Sané ginnaaw si loolu nag uh, mu ngi doxee ci match bi nga xam ne moom la Bayern doon amal ci uh, talaata bi weesu uh, te moom mu jëree rek daal di am défaite moom moo jur coowam digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Sané ba Sadio Mané jot ko dóor ci Versailles yi nag ca la coow li daal di amee mu mel ni ki la di Sadio Mané Bayern Dominique ak FC ba daal di nañuy rek jël ab dogal daal di koy suspendre ba nouvelle ordre yooyu lay sanction yi tegu ci kawam ab amande sax ñu ko ciy Diomaye fi ne eh, ci guddi gu bët setagul ca la nekk ñenn ñaa ngay wax sax est-ce que du quitter Bayern fii léegi été bi ndax situation moom muy dund dana nekk rek luy compliqué ci jamono jile. ginnaaw coow lekk li nga xam ne moom moo di suspension Sadio Mané sénégalais yi daal dina ñuy réagir quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt pour cent des sénégalais moom la ñu àndal li waral lool nag bokk na ci Sadio maane bi ñu xamoon ci tàmbali ba fu ñu yegg si ni tey kenn mësu ko gis ci violence kenn mësu ko gis mu ci kàddu bu ñaw wala sax kenn mësu ko gis ci benn geste indiscipline ndaxte euh, moom euh, Sadio Mané bu demee tey ba def lu ni rek c'est parce que dafa sës mu mel ni sax ña ngi ñuy xamal. ana rek lan la ko Sané dal di wax ba mu dal di koy dóor are ah, bokk na ci amoo fi woon benn njariñ si biir terrain bi maanaam Sadio Mané nekkatul plus benn Sadio Mané bu performant maanaam ah, amul benn njariñ ki terrain bi comme ku ñu fa teg rek ba noppi bàyyi ko fa deful benn réaction ndax ki la di Sané dafa waroon ah, rek am dafa amoon ab occasion ci quatre-vingt-troisième minute bi bëggoon ko dóor mu dugg te loolu antuwul moom la mere Sadio maane di ko sànni loxoog di ko yàq lu mel ni ki tamit moo tax Sadio Mané dal di koy dóor mu mel ne xibaar boobu la ñu daal di xamle waaye ñenn ci ñaale Sadio Mané ñoom dañoo jàpp ne rek lu ni mel bu amee itam euh, lu ñu mënuñu ko rafetlu waaye euh, daal di nañuy ci ànd bu baax a baax euh, ku ci mel ni commissaire Bal Meseda daal di xamle ne le respect ça s'arrache maanaam Sadio Mané ci boppam yàgg nañu ko rek torturer di ko yàq lu mel ni keme te musu rek daal di réagir mu mel ni sax ci noonu cooli bi mu amee ci la yu bëree bëri commencé di feeñ que Sadio depuis mu intégré Bayern ba léegi. am na ci ñu fa nekk ñoo xamante ne ni dañ koy bunduxatal ak di ko ndaxte Sadio Mané ak performance yi mu am waaye itam parcours professionnel bi mu am uh, ci wàllum uh, football ba àdduna yëpp nangul ko mu am ñaari ballon d'or ba ci sax lu ñel ballon d'or coupe du monde bi ñu bari doon ko ci xalaat te malheureusement mujjul dem coupe du monde mu mel ni ci mbirum Sadio Mané la ñuy des ba léegi ginnaaw lu ni mel daal di nañuy gis nag ñenn ci ay jegeñaaleem daal di réagir mu mel ni famem daal di nañuy réagir am naqar bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ñuy jaw jaw jawti seen doom ndax xibaar boobu nekkul xibaar bo xam ne rek benn nit ñaar nit ko yëg aduna wérngal këpp yëg nañ ko ba ci suñu mbokku africain yi ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi def ab vidéo di soutenir ki nga xam ne moom moo di l'international Sadio Mané Mara Niass moom di ab sëriñ bu ñu yàgg dégg muy wax ci kii di euh, Sadio Mané di xamle ne Sadio ci boppam depuis mu am blessure ba léegi euh, dafa rek daal di am lu nekk si yaramam maanaam mbirum maraboutage rax na ci ek ay mbokkam nañ ci jóg ba ilaa rek dana nekk luy compliqué. ci noonu nag ba mu ko waxee sénégalais yëpp daal dañuy jël vidéo bu partagé bu noppi ku nekk yéy ci yàb bi ngeen ni jàpp ne kile di Mara Niass amaanaka li muy wax dara amu ci ca géneenu fànn itam jàpp nañu nekk kile di Sadio ndax gis nañ ko depuis mu dal di am ab retour euh, ci biir terrain bi ba mu gaañoo ba léegi Sadio ba ñu xamoon waroon na lool ak Sadio bi nga xam ne moom la ñuy gis ci jamono jile du lu yomb nag ci boo jugee ci blessure bu am ay weer ba nga rek relevé wu nga daal di delluwaat ci état ba nga nekkoon ñu dal di addu wax ci leneen mu di euh, lu ñel euh, mbirum Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang euh, ginnaaw moom Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñu fas yéene rek dal di amalaat appel procès boobu ca procès en appel bi ñu fas yéene amal dix 17 avril bi ñu dëkmal mu mel ni fi ne tàmbali naa jur ay débat ay polémique ay wax ak yenn interrogation yi ci jot a juddu ana rek lan mooy xew la 17 bi ndax ñu bari jàpp nañu ne ku ci mel ni Bassirou Diomaye Faye jàpp na ne Mame Mbaye Niang recours bi muy def dafa am rek lu ci lëmasu bokk na ci éligibilité Ousmane Sonko ci présidentielle yu mille 2024 maanaam euh, Mame Mbaye Niang dana def kéem kattanam ba Ousmane Sonko bañ a bokk ci présidentielle yu vingt 2024 lu ni mel nag dafa rek daal di nekk ab débat ci réew mi di Sénégal. ñu jàpp ne itam le 17 dana nekk bés buy compliqué ana rek lan moo dara xew ci diggante coowal Mame Mbaye Niang Sonko ci coowal diffamation ci ak fàttali moom ousman Sonko moo fi waxoon rapport IGF dafa rekk dal di épingler Mame Mbaye valeur vingt neuf milliards mu di rapport Prodac boobu ah, ba ñu ko àttee itam teg nañ ci kawam ay daan yu tolloog deux cent millions maanaam ñaar téeméeri millions ci suñu xaalis ak ñaari weer yoo xam ne ah, sursis la ñu daal di addu wax ci leneen mu di ah, waa Pastef ñi ginnaaw série d'arrestation yi nga xam ne jot naa rek daal di amal am na ci koo xam ne moom yoon daal na koy setal tey ba bàyyi nañu ko mu ñibbi këram mu di Babacar Sarr di chargé de com bu Pastef Touba moom nag dañu ko Sarr nag di ab prof histoire géo CM bu Mbàkke ginnaaw bu ñu ko tuumaalee ci a plainte bu mu jotoon ñaar fukki fan ak ay fukki fan boobaak tey euh, mu dal di tëdd ci kaso gi euh, plainte bu Moustapha Missiré defoon Moustapha Missiré di bokk ci parti réew mi bu Touba euh, ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom Moustapha Missiré nag ba mu plainte ci la ñu jàpp Babacar Sarr ginnaaw si loolu nag ab àtte tey ci tribunal grande instance bu Diourbel ca la ñu xam de ne kile di Moustapha Babacar Sarr la ñu koy toppee dara amu ca maanaam non coupable bàyyi mu ñibbi këram bu ñu fàttalikoo coow loolu lan moo ko waxaloon ay audio ci groupe whatsapp bi ñu daal di xamle ne kile di euh, Moustapha Missiré coowal mœurs la ñu ko doon tuumal ca ville sainte boobu euh, ca Touba ba mu mujjee rek gàddaay jóge fa moom mu andi coow li waaye la ñu doon toppee Babacar Sarr yëpp euh, du lenn loo xamante ne nii rek yoon daal dina ko ci teg ay dan Diomaye Camara di ko xam ne ràññee ko nañu ko lool ci Sénégal jot na daal di réagir ci geste bi nga xam ne Sadio Mané def na ko moom Diomaye Camara nag mu ne Sadio Mané ku ñu kese la euh, wala sax li nga xam ne moom moo di euh, Sadio Mané bu Sénégal ak kenn mësu ko dégg ci dara loo xam ne ay détails la wala lu ñàkk fayda et saison wam macha allah ci début saison wam ndogal bi ñëw dal ci kawam et que violence kenn du ko coaché waaye itam Sadio ci boppam am na droit défendre boppam ngir ñu respecté ko. ñu daal di àddi wax ci leneen lakk gi amoon ci euh, bésub euh, le 16 mars ci procès Ousmane Sonko ci bésub procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang euh, moom moo rek daal di amoon ci fa nga xam ne moom moo di caisse de dépôt et de consignation nekk ci VDN bi ci troisième étage ba moo daal di jékki-jékki tàkk jëppet di wàcc ba ci rek yeneen étage yi les échos daal di ci xëy indiwaat ay leeral ne armoire ya nga xam ne fa la ñu defoon matos yaak yëpp dafa rek daal di lakk ginnaaw enquêteurs yi nga xam te ñoo ci dugal seen loxo division des investigations criminelles ak yu ni mel jàpp ne rek am na lu nekk ci biir rawatina mu daal di tombeek ba suub li nga xamante ne nii moom moo di euh, le 16 mars du coowal Ousmane Sonko. Mame Mbaye Niang ñu jàpp ne incendie volontaire la maanaam lakk-lakk goo xam te ne rek dañu ko tey daal di koy lakk benn agent wu CDC boo xam ne boobaak tey dafa rek daal di réer mëri ci jaww ji tax mu daal di créer ay soupçon euh, ñuy xaarandi rek enquête bi nga xam ne division des investigations criminelles ñi ngi koy amal ngeen ñu mën a xam euh, ci pandaw boobu lépp dossier ñu daal di koy jeexale ak docteur Niang bu suma assistance moom nag ginnaaw bu ñu ko tegee loxo bu mu génnee am na occasion daal di leeral yenn ci ay points bu ñu leen doon euh, tuuma rek ne ñoom ñoo tax ba Amadou Ly doonoon agent sous euh, maire bu Médina daal di génn àdduna docteur Niane daal dinay xam ne ne defu ca dindiw ca euh, rek waru ko a boole ndax moom fàttul kenn suivre ko laalu ko amul lenn lu ñu ko ca war a mën a toppee ba cay xaatim aw turam di ko ca plainte wala sax ñu ko ca jàpp mu ne nag ba ñu demee ba xam ne moom defu ca dindiw ca waruñu ko wan rek daal di dugal ca mbir ma waroon nañoo xamal Bamba Fall ne moom euh, docteur amul lenn loo xam ne rek yoon war na ko ci topp kon war nañ caa génne aw turam mu ne nag nañu dem wari ñaka faat ndaxte euh, bu ñu xoolee euh, dañu ko rek daal di dóor boobu ba toj tojaat te ci loo xamante ne ni luy compliqué lay doon docteur docteur Niang ah, mu mel ni daal dinay tënk ay kàddoom ngir seetal deram par rapport ak coow liñ ko doon toppee ba waroon yoon daal di koy topp ba mu nekk sous a judiciaire mbokki xaritu ñu doon déglu ci net bi TV Sénégal amoon nañu mbégte ngir ànd ak yéen ñu ngi leen di jaajëfal te di leen jox dig daje ëllëg incha ci beneen jotaayu xibaar jaa ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm